abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, ba tey ku wax li wax la ca des mën nañ ne nag gannaaw diwaanu ndakaaru di yëngu jamono yi ñu toll nii waa Ziguinchor commencé di jël seen wàll nag ci seen doom ji nga xam ne rek mën nañ ne euh, seen bakkan lañ ko daal di jox ni ki tey nag mën nañ bu ñu gisee ay activité yu bare bari daal di jot xew ci journée bi ci ay yàq yu nga xam ne rek mën nañ ne ko jur du lenn lu dul rek gannaaw arrestation ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ni ki démb ñu daal di koy kidnappé mën nañ ne ba jamono yi ñu toll nii sax nekkagul ci liberté nekkat ñu bare bari bëgg am accès ci moom te amuñu ko di ñu nga xam ne rek ñu koy jege loolu lañ tax nag waa Ndakaaru yëngal waa Ziguinchor daal di leen di feelu ci jamono yi ñu toll nii mën nañ ne nag foofale ca diwaanu Ziguinchor mu commencé di tàng lool te nag ñoom xam nañ ne kat duñu yam ci yàlla dee nakat dañuy fecc ba passé saa yi loolee tax ñu daal ne seen doom ji di président Ousmane Sonko nag duñu ko sarxe duñu ko maye nekat leble wuñu ko ndaxte kat ku la ñu ko bàyyeeko ka Ndakaaru ba muy départ ndénkaan ya nga xam rek daal nañ ko woon a dénk ñoom ñii diwaa waa Ziguinchor taxoon sax ñu ne ko woon doo déplacé wu nekkat doo dem di ñu fi bàyyi mën nañ kat lañ sa doon ragal lépp rek daal di nañ koy mujj gis gannaaw nag ñu ko kidnappé ni ki tey rek indi ko fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi mën nañ ne si euh, suba ba tey rek euh, diwaanu Ndakaaru mi ngi boy tanak xale yi nee nañ bàyyeeguñ te tamit xalaataguñoo bàyyi way leen di abonné ñu di leen di toppal info yi